mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi nga xamee ni nii moo ñu wër sa galaat ñu daje ci ab néegam tey jii ñu fas yéene jël lenn ci ay kàddoom yu mu wàcce woon ci sunu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nekkit la nga xam ne mooy en direct ci sano xam si diine bi ñu koy jël en vidéo di ñaan yàlla subhanahu wa taala boo dem ñi teew ci jàkka jeeg ñu nga xam ne ñoo koy déglu feneen ci direct bi ak ña koy déglu ci yeneen yi yépp suñu borom yàlla yàlla nañu yàlla nangul boo nañu ci ñooñu alquran ñi nga xam ne ñoo koy jàng di ko gëm ca di ko jëfe ñi ngi nekkoon ci suuratul qasas ba yegsi ci woon ci aaya soixante-dix-huit bi ci suñu borom di waxee ci qaaruuna qaala innama utiituhu ala ilmin indi aaya soixante-dix-huit ci suratul qasas innama utiituhu ala ilmin indi incha allah kon ñu bàyyi ci Cheikh Alioune mu jël ñu sunu bind bu njëkk
لك أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني قارون دينينا قال إنما أوتيته على علم عندي sama alal jii day man ko jot ci xam-xam bu nekk ci man wala xam-xam bu yàlla xam ci man awalam yaalam mën a qaaruuna daa xamul ni ann allaha qad ahlaka min qablihi ne yàlla day alagoon na ca ña ko jiitu woon min alquruuni ci ay maas man huwa ashaddu minhu quwwa ñoo xam ne ñoo ko ëpp kattan wa aksaru jamaa ca it ëpp la ko la nga xam ne moom lañ dajale donte ne man day firi koo xam ne fii dafay firi mbooloo wala yusalu an zunubihim almujrimuun ce kenn du laaj ci seeni bakkaar ña nga xam ne ñooy kàccoori def ko te bakkaar ya fa xaraja ala qawmihi fi zinati noonu la génne ca xeetam ba ca taaram ba qaala allazina yuriduuna alxayaata addunya noonu la waxe ña nga xam ne dañoo bëgg dundug àdduna يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أي واي أكا نيخون ني أم لو ملني لا قارون أمون إنه لذو حظ عظيم moom day nekk na borom cër boo xam ni borom cër bu màgg la wa qaala allazina utul ilm noonu la waxee ña nga xam ne dañoo jotoon xam-xam waylakum alkaa nga ñel na leen sawaabullahi xayrun liman aaman lii di fayug yàlla de moo gën ñeel ka gëm wa amila saaliha te jëf-jëf ju yiw wala yulaqaaha doonte ne loolu duñu ko dëppaleeg moom di ko dajaleeg moom illa sabiruun lu dul ña nga xam ne ay muñkat lañu mi ngi noonu yow mi fekke woon àllarba ji wees suñu boroom mi ngi ñu doon jox misaal ci benn ci ay jaamam yu bokkoon ci ñi mbëru ci kaw suuf muy ñetti jaam yu mu dajale woon kii mooy firawna di yàlla joxoon nguuru gum joxul kenn kii mooy Haamaan mi nga xam ne moo nekkoon du doxal nguur ga kii mooy Qaaruun mi nga xam ne yàlla joxoon na ko alal ci jamonoom loo xam ne kenn amu ko woon ku dul moom ba suñu borom ne caabi magasin yi rek buñ ko dajalee loolee da ngay gis ne da daan diis mbooloo pour ñu yëkkati ko qaaruuna bew ci seen kaw bew goo xam ni jéggi na dayoo bokk na ci bew googee ci liñ leen ci nettali woon mas na dem fekk sax benn soxna soo xam ni dafa ëmb mu jox ko xaalis bu bari na ko demal nga ne Muusa mu la ëmbal ba loolee da ngay gis ba yeneen ci yàlla Muusa ñëwee ca mbooloo ma daldi ne soxna si maa ngi julli ñaan yàlla soxna si ne na ko déedéet qaaruuna ma ma jox alal wax ma loolu waaye kay man musuma siq ak yow la dara ala kulli xaal suñ borom yàlla defoon na ca dëkk ma benn mbooloo mu baax ñoo xam ne ñoo ñëw conseiller ko ne ko ay qaaruun bew gi nga bew de yàlla bëgg ko doonal kuy sant yàlla rafetal comme ni yàlla rafetale ci yow ca mooy bañ a sàkku lenn loo xam ne ak yàqale ci kaw suuf mbokk conseil boobu nga xam ne waxoon nañu àllarba ji paase ni li ëpp ci ñi sànku tey loolu moo leen manqué mooy li gën a néew tey ci suñu jamono mooy nga gis nit nekk ci yoonu ndëng ba pare am ku ko conseil waaye qaaruuna bi loolu amee lan la wax mu ne leen hey man xam lii ma am sama xam-xamu bopp moo ma ko may kon amu ci kenn ko ma ci sant am ñu jàpp ne dani lii day xam-xam la bu yàlla xam ci man ne yeyoo naa ko moo tax mu jox ma ko comme la suñu borom di wax naan rabbi akraman ci doomu aadama bu ko yàlla terale loolu mbokk mu nekk ci bakkaar yi gën a grave mooy doomu aadama nga dem ba jàpp ni yow yaa may sa bopp te nag lu ëpp ci doomu aadama yi seytaane da leen a galgal foofu mbokk nguur qul illahuma malika al mulk tu'til mulka man tasha yàlla jox nguur ku ko neex wërsëg yàlla subhanahu wa taala moo ko jox ku ko neex xam-xam laa ilma lana illa ma allamtana yàlla moo koy jox ku ko neex loolu nag heure boo xamee ne nii sabab lu nga ba yàlla jox la ko danga koo war a delloo sante ko yàlla bu ko defee yàlla wëlbati ko defal la ko xéewalu àdduna ak xéewalu àllaaxira amma bu dee ne danga beewee la la yàlla jox daan ci jël nii léegi benn misaal ci qaaruun waaye nañu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy nettali nee na ñi ñu jiitu woon amoon na ci benn ñetti nit ñoo xam ni dañoo nekkoon ci benn dëkk kenn ki daa gaana ki ci des daa silmaxa ki ci des dafa doon koo xam ni bopp ba amul benn karaw dafa mën feebaru dermatologie boo xam ne bopp ba dafa nelu ba pare der bi ñaaw lool ah suñu borom yàlla di leen nattu bi mu ñëwee ci ki nga xamee ne nii mooy waa ji gaana mu daal di ne ko ah waa yow de yàlla teg na la nattu bi mu ne waaw mu ne ko waaw léegi lan nga bëgg ma ñaanal la ko ci alal mu ne ko ah alal day su ma ko amoon cey danaa ci sant yàlla def ci lii def ci lii mu ne ko waaw léegi yal na yàlla ubbi la buntu alal daal di koy jox benn gileem gileem googe yàggul dara mu jur di jur di jur ba jur gétti gu kenn xamul mu dem ci waa ji nga xam ne der ba dafa yàqu amul karaw amul dara ci am karaw dañ ko doon puukaroo seen jamono mu ñëw na ko waaw yow lan nga bëgg ci alal mu ne ko ah man de su ma amoon alal danaa sant yàlla def lii def lii waaye nag li ma gën a itteel de mooy lii nga xam ne nii dal na ma sama der bi fekk gaana gee ma jëkk a waxit waa ji daa ñaan yàlla saafara ko ba pare jox ko alal kii it yàlla ñaan yàlla saafara ko jox ko alal ñëw ci silmaxa bi même chose daa ji na ko yow lan mooy sa problème mu àdduna mu ne ah xanaa day bëggoon a gis rek tey su ma gisoon danaa sant yàlla bu baax ah mu daal di koy ñaanal mu gis ba pare mu ne ko ah loo bëgg ci alal mu ne ko ah man day ay xar de bëggoon naa ko mu may ko at mu ñaanal may ko benn xar yonent bi alayhi salaam nee na waa ji dem ba jëmmi jamono mu dellu siwaat fekk kee der bi yàqu woon ma nga jiital géttu gileem kee gaana woon ma nga jiital géttu nag kee silmaxa woon ma nga jiital géttu xar mu ñëw ci waa ji der bi yàqu woon na ko waaw ay diw man day ku tumuranke la jóge woon sama dëkk ñëw fii jaaxle lool dégg alal ji la yàlla may man a woon ma ñëw rek ngiree nga jàppale ma lu ma mën a continuer sama tukki mu ne ko ban alal ju ma yàlla may alal ji sama xam-xam ba mu ko may ma doon na ko sama bàyyi nga ne alal ji la yàlla may mu ne ko bu dee ne day li ngay wax ay fen la yàlla fekk mu ne ko waaw ah yow dafa mel ni yow yaay diwde mii nekkul fii doon ak gaana mu ne ko man masa gaana li ngay wax da nga koo xam ah jógal fii mu ne ko bu dee ne day li ngay wax du dëgg yal na yàlla delloo la na nga meloon démb dem ca waaja nga xam ne der bi yàqu woon na wax ko même chose kooku tontu ko même chose mu ne ko bu dee da ngay wax du dëgg yal na yàlla delloo la na nga meloon mu dem ca silmaxa ba silmaxa bi ne ko ah wax nga dëgg de man day dama silmaxa woon yàlla wërsëgal ma ma dajeeg benn waaju baax mu ñaanal ma may ma benn xar xar boobee la yàlla barkel gitt gi yépp ci la jóge amul lu ma lay may seetal lu la doy nga jël ko dem amul lenn lu ma lay xam mu ne ko nag man day du ma nit malaaka laa bu yàlla yundi woon ci yéen di leen nattu yow day yàlla dana la barkeelal sa alal ji àdduna ak àllaaxira waaye gis nga sa mbokk yee xool leen teguñu ci ay fan seen alal yépp daal di yàqu teguñu ci ay fan ku nekk mel ca melokaan ba nga nekkoon mbokk li histoire la bu ñu yenent bi yàlla nettali lenn dong lañ ciy tiire mooy ngallaawaay doomu aadama xamal ne ñàkk gi nga nekk feebar bi nga nekk su neexee yàlla mu dindi ko am déet su neexee yàlla mu dindi ko jox la alal comme na mu ko defalee ñetti ñee ñaareel bi it lu la yàlla jox sant ci yàlla boo santee yàlla yàlla barkeel ko waaye boo ko bewee tôt ou tard da ngay mës a gis résultat bu bon boobee ñu dellu ci xaaru xaaru ne moom hey man lii sama xam-xam la borom bi ne waaw xanaa xamul ne moom alagoon nañ ñu ko jiitu ci ay maas ñoo xam ne ñoo ko ëpp kàttan ëpp ko lu ñu dajale ca mbokk yàlla ñu nettali xaaruuna ca la ñuy doog a xam xaaruuna waaye yàlla nee na am nañu jiitu woon xaaruna lam leen jox ci doole te na am xaaruna ponkol la woon moo xam ne mbo mbooloo mu mu dem ñépp di ko xool waaye xoolal waa aat xoolal waa samuut la ñuy yàlla nettali ci ñoom gannaaw ba suñu borom mu ne ñi leen ko jiitu woon it joxoon naa leen alal boo xam ne nii ah moo ëpp la xaaruna am teewul yàlla alak leen borom bi nag ne yowmal qiyaama kenn du laaj tooñkat yi seeni bakkaar te mbokk yowmal qiyaama bu ñu fa demee képp koo xam ne saay-saay nga woon ci kaw suuf ku la gis xam ne yow mii ab saay-saay la woon yu'rafu al-mujrimuuna bi siimaahum ña nga xam ne ñooy lekk ko ci riba yi seen biir yaa ngi réy toll na ay néeg ñooy caddi caddi allazina yaquluuna riba la yaqumun illa kama yaqumu lazi yataxabatuhu shaytan min al mas ña nga xamee ni nii dañoo sàccoon ku nekk loo ma sa sàcc yaa ngi ko gàddu mi ngi noonu kenn du laaj kenn sa bakkaar léegi xaaruuna génn ci xeetam ca taaram ba gannaaw ba mu tontoo tonte bu ñaaw boobi so dellu woon ci téere bani israil yi nga xam ne duñ ko gëm duñ ko weddi ñu ne dafa génn ak junni fas la xaaruuna àndal ànd ak junni jaam ñépp sol ay tëni xaaruuna taaru sol loo xam ne la ci ëpp or la daal dina génn ci seen bisu feet ba nga xam ne dañ ko doon def mu yowmu ziina bi loolu amee ñi nga xam ne dañoo bëgg àdduna te aka bari ci jullit ñi yéeféer moom àdduna rek la bëgg waaye aka bari ci jullit ñoo xam ne tamit dañoo bëgg àdduna yi kese ña nga xam ne dañoo bëggoon àdduna ne ay waay aka neexoon yàlla may ñu lim may xaaruuna ay waay xaaruuna rii ab cër waay innahu lu zoax azim azim waaw ñoom jàpp nañ ñi cër mooy alal rek bi loolu amee ña nga xam ne ñooy borom xam-xam ya ci xeet bi na leen alkaa nga ñeel na leen xam leen ne pay bay bawoo ca yàlla day moo gën lii ngeen di ñeey xaaruuna te mooy jaamu yàlla ba yeyoo aljanna ajjana kenn du ko méngale ak li xaaruuna am ca tiyaaba bu mu mën a toll kenn du ko méngale li xaaruuna am doonte ne ni muñkat yi dong ñooy mën a dajeeg fayib yàlla boobee muñkat yi mooy ñan mooy ñu muñ ba def ndigal yi muñ ba bàyyi tere yi muñ dogale yàlla yi ba baa ñu dajeeg moom la leen yàlla dencal ca àllaaxira day moo gën la nga xam ne jox na ko qaaruun bokk na ci lu ñuy nettali ci suleymaan alayhi salaam mas na romb nguuram romb benn baykat baykat bi ne cey away nguurug suleymaan gi waay suleymaan dégg ko ñëw ne ko benn subhanallah boo wax ca mu sell day moo ëpp doole sama nguur gépp ndax sama nguur gépp àdduna la yem ci subhanallah boobu mi ngi lay xaar yowmal qiyaama yal na yàlla boole ñu ci muñ kët yi mi ngi noonu bismillah
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
بارك الله فيكم سيدي برموني وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس نعم فخسفنا به وبداره الأرض سني برموني ني داي لنكو mëddee mooy dugal ko ca suuf xar suuf dugal ko ca moo këram gam doon puukare woo fa ma kaana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah ñeelu ko benn kuréel boo xam ne dana ko dimbali gannaaw yàlla wa ma kaana min al muntasirin ci nekkul woon ñi mën a dimbindikoo seen di seen kattanu bopp wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams nii day la xëyee ña nga xam ne ñoo doon mibét ngiree nekk palaasam ci démb ja ya yaquluun ñoom ñëpp ñuy wax way ka anna allaha yabsutu rizqa liman yashaau min ibadi ay waay nekkate yàlla day mooy tàllal wërsëg ñeel ku ko neex ci ay jaamam wa yaqdir ak it di leen gàttal ñeel ku ko neex lawla an manna allahu alayna budul woon ak yàlla dafa baaxe ci ñun day la xasafa bina kon doon na xar suuf dugal ñu ci ñun tamit way ka annahu la yuflihu alkafirun ay waay alkaange way arab da koy wax ci heure bu wax kawtéef mi ngi noonu la yuflihu alkafirun la nga xamee ni ni mooy ay yéeféer du ñu te texe mukk borom bi mu ne tilka daarul axira lii day muy kërug alaxira ga naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada dañ ko jagleel ñi nga xam ni bëgguñu kawe kawelu ci kaw suuf bëgguñu yàq ci kaw suuf wala aqibatu lil muttaqin la nga xam ne mooy mujj gu rafet du ñeel lu dul ña ragal yàlla man jaa bil xasana koo xam ni dikki na yowmal qiyaama ci lu baax fa lahu xayrun minha dana ko ñeel lu gën lu baax loolee mu def wa man jaa bi sayyi'a koo xam ni dikk na fa lu ñaaw fala yujza alladina amilu sayyi'at kenn du fay ña nga xam ne dañ doon jëf-jëf yu ñaaw ya illa ma kaanu ya'maluun lu dul lañ nekkoon di ko jëfe mi ngi noonu mbokku qaaruuna ngi noonu ci seen bisu feet yi ak la ko wër ca fasiya la ko wër ca la nga xam ne nii mooy taar ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala indi benn place ba mu nekk xar suuf si daal di ko ciy dugal moog lépp loo xam ne nii àndoon na ak moom mbokk loolu di kawtee fi borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na it mi ngi nekk di jalti jalti ci kaw suuf ci biir suuf ba ila yawmi diin loolu mooy mbugal ba ko yàlla subhanahu wa taala mbugale ndax rëy rëylu ga nga xam ne rëy rëylu woon na ko ca loolu it muy waññi ne lii di élément yi nekk ci àdduna yépp ay jaami yàlla lañ yu déggal yàlla qaaruna gis nga suñu borom mi ngi ko booleeg suuf suuf daal di koy labal mëdd ko firawna suñu borom ma ngi ko booleeg géej géej gi daal di koy labal moom tamit mëdd ko loolu muy wane ne doomu aadama yi buñ déggalul seen borom it asamaan ak suuf ak lépp lu ci nekk ñoom dañuy déggal yàlla ci duñ mooy yàlla atayna ta'iin loolu it lañu suñu borom subhanahu wa taala di wax naan afa amina alladina makaru sayiat an yaxsifa allahu bihum al ard aw yaatihum al azab min haythu la yashurun ndax ñi nga xamee ni dañuy def lu bon tiitoo rek place bi nga toog yàlla xar ko nga daal di dee ci saa si tremblement de terre semaine bi passé rek am na bu ci amoon turki te mooy yàlla moo moom asamaan moom moom suuf ah léegi nag xaaruuna benn bis mboolem ay trésor am ak moom suuf ma dina leen borom bi nag daal di ne loolu la xëyee ñi nga xam ne ñoo bëggoon a nekk place am ca démb ja gis ngeen démb rek xaaru naa ngi ci kaw suuf tey xaaru naa ngi ci biir suuf mbokk loolu misaal la boo xam ne suñu borom wax nañu ko waaye tey xoolal tous les présidents de la république yi nekk ci kaw suuf tous les milliardaires yi nekk ci kaw suuf ak lépp loo xam ne am nañ ko bis day mës a ñëw rek ñu daal di xar suuf dugal leen ci am déet mu jeex ñépp ci suuf la ñuy mujj looloo tax ba mbokk yeneen ci bi alayhi salaam dañu doon tegtal ngallawaay booy ñee bul ñee lu dul koo xam ne la nga koy ñeeye da koy jëriñ àllaaxira bul ñee lu dul koo xam ne la nga koy ñeeye da koy jëriñ àllaaxira moo tax mu naan ñaar doo nga jote ñee ci yàlla may alal alal joojee mu koy dépense guddi ak bëccëg ca la neex yàlla ki yàlla may xam-xam xam-xam boobee mu koy jëfe di ko jàngale guddi ak bëccëg keneen ku dul kii ci mbiru àdduna boo ko ñëwee da ngaa xamul mi ngi noonu loolu nag comme ña nga xam ne dañ doon mébét ca nekk place xawruna amoon nañu ay borom xam-xam yoo xam ne waar nañu leen ba ñu rëcc wax ju ñaaw jooju ñu waxoon ñu ne cey ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu yàlla baaxewul woon di ñu nit yàlla danañu la baale ca mbokk képp ku nekk ci lu bon képp ku ko ca ñee bu mbugal bu ñuy yéen yéen a koy ànd looloo tax ba xeet bi gën a texe ci xeet yi mooy xeet bu am ay borom xam-xam yuy digle lu baax di tere lu bon waaye mbokk bokk na nattu bi ñu yàlla gën a nattu rawatina suñu réew yi ñañ doon tudde boromi xam-xam tudde leen ay njiiti diine nga xam ne ñoo waroon a di diglu mbooloo mi ku ci wax wax ju ñaaw ñu dal sa kaw ku ci dégg lu jëf ju ñaaw nga dal ci kawam tey la ëpp ca ñooñe nga xam ne ñooy jiite ñooy jiite wax yu ñaaw ya ñooy jiite jëf yu ñaaw ya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loola tax ñu ne ñun ñi ngi sant yàlla yàlla boole la ñoo koy borom xam-xam ba waar nañ ñu ba rëcc nañu moo tax mbir bi bi mu ñëwee yem ci xaaruun waaye bu dul woon ak looloo ñun yàlla danañuy mëddaale borom bi nag subhanahu wa taala ne waa mi ngi noonu allaxira day ma nga nee di xaaraate borom bi neen nag maa ngi ko jagleel ñi nga xam ne bëgguñoo réy réylu ci kaw suuf bëgguñu yàq ci kaw suuf mbokk jullit du bëgg rëy ana lan mooy rëy rëy mooy batarul xaq wa xamtu noos rëy mooy bañ dëggug yàlla gi nanguwoo koo gëm nanguwoo koo jëfee rëy mooy xeeb doomu aadama yi su ko defee yow jullit jullit du bëgg rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ko jiite woon yépp bokk na lañ gënoon a feeñal ci seen dund mooy suufe ci kanamu jaami yàlla yi waaye it nangu dëgg gannaaw ba jullit du bëgg la nga xam ne mooy ak yàq mbokk ku bëggul lu yàq ku bëggul ak yàq doo yàq jullit day bañ njaalookat jullit day bañ naan katub sàngara jullit day bañ lekk katub riba jullit day bañ képp koo xam ne daa bew ña nga xam ne dañoo def loolu da nga leen di bañ waxumaan ak yow nga dem di ko def laa yuhibbuna uluwan fil ard wala fasada laa yuriduna uluwan fil ard wala fasada borom bi nag ne mi ngi noonu xaaruuna alalam taaram toroxtaange la mujjee ana kon kan mooy am mujj gu rafet wala aqibatu lil muttaqin ña nga xam ne ñooy am mujj gu rafet ci àdduna ak alaxira mooy ñi nga xam ne dañoo gërëmoon yàlla moom mbokk ñooñu ñan mooy al muttaqin almuttaqin mooy ñi gëm yàlla bokkaali wuñ ko almuttaqin mooy ña def ndigali yàlla yi seen kémtaleel kattan ñii ñooy almuttaqin ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne allaxiraa ngi ñëw képp koo xam ne indi na fa lu baax te mooy tawxid ak la muy àndal ku mel noonu day dana ko ñeel lu gën lam doon def na am ndax suñu borom yàlla mooy borom pay gi alaxira kenn du ko liggéey aljanna kenn du ko liggéey mbaax la gu ca yàllay dolli waaye doomu aadama mënoo liggéey aljanna xatta yonent yàlla bi muhammad mënul liggéey aljanna day def kay yàlla dolli ci ay xéewalam lahu xayrun minha waaye boo ko sawara it képp ku def lu bon ba ñëw alaxira da nga fa fekk lu yées la nga xam ne moom nga doon jëf ca mooy yàlla dana la fay lu méngoog yow dalaa bindoon indi la ci àdduna nga fàtte yàlla topp say banneex alaxira yàlla dugal la ci kër goo xam ne dala fay fàtte yow it xaalidina fiha muy safara yàlla na yàlla musal ñu ci mi ngi noonu
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون جزاك الله خيرا سني برم سبحانه وتعالى مني إن الذي فرض عليك القرآن ki nga xam ne moo farataal ci yow alquran la radduka ila maad dana la delloo ca la nga xam ne mooy delluway ba qul rabbi aalamu man jaa bilhuda neel suñu borom yàlla moo gën a xam ki indi ci ak njub wa man huwa fi dalalin mubin ak koo xam ne daa nekk ci réer goo xam ne liir gu bir la gu leer la wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab mosoo nekk di yaakaar ni daañu sànni ci yow la nga xam ne mooy téere bi dañ ko wàcc ci yow illa rahmata min rabbik xanaa lu dul yërmaande bu bawoo ci sa boroom fala takunanna zahiran lil kafirin bul nekk mukk koo xam ne aji dimbalikat ngay doon ñel yéefér yi wala yasuddunaka an ayati llahi baada is unzilat ilayk bul nekk mukk mu lay fekk ci aaya yàlla yi gannaaw ba nga xamee ne nii dañ ko wàcc ci yow bu dara dox sa diggante ak moom wadu ila rabbik wootal jëme ci sa boroom wala takunanna min al mushrikin bul bokk mukk ca bokkaalekat ya wala tadu ma allahi ilahan axar bul woo mukk gannaaw yàlla yàlla keneen laa ilaha illa hu kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom kullu shay'in haalikun illa wajha lépp lu mën a doon day masa alku jóge fi xanaa lu dul kanamam ga lahul xukmu wa ilayhi turjaun dana ko ñeel atte ba atte yépp ñeel na ko te ci moom la lépp di dellu ay ci moom ngeen di dellu yéen ñépp mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax fii nii moom moo farataal alquran ci yonenti yàlla bi yonenti yàlla bi yàlla da koo digal moo gëm alquran jëfe alquran loola tax suñu borom seydeel ko ni amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbi gëm alquran jëfe alquran borom boobu nag ne ko danaa la delloo ca delloo kay ba loolee boo demee ci mufassiruuna yi am na ñoo xam ne dañ koo firee ni màkk gii day ñu génne la mu naqari la lool sa xol sedd danaa lay delloo si waat ci biir makka delloo si boo xam ne delloo si kattan lay doon ala kulli xaal loolu yàlla def na ko ba ko waa makka génne génne ba sax mooy dañ ne buñ ko jàppee nañ ko rey looloo ko fa génne juróom ñetti at lañ ca teg suñu borom yàlla may ko kattan mu ñëw ubbi makka waa makka yépp taxaw ci kanamam mu ne leen lu ngeen jàpp moom lay def ak yéen ñu ne ko xamuñu ci yow lu dul doom ju baax nga doon jóge ci waajur yu baax mu ne dem leen gorel naa leen doonte ne ni yeneen mufassiru yi dañuy dañ koy jàppe ne yàlla xamal ni dana la delloo alaxira ca li nga xam ne moom la yàlla dikk ab yonentam dikk julit ñi mooy alaxira wala al axiratu xayrun laka min al ula alaxira mi ngi lay xaar allahuma soo ñëwee dëkk bu mel ne Sénégal am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni yonent yàlla Muhammad kat daa judduwaat daa di nekkaat ab yonent kenn ki la du ñaar moo weexoon démb weex tey ah moo ñuul moo weexoon démb ñuul tey loolee ñu ne lan mooy dalil ba ci alquran ñu ne suñu borom nee na ko inna lazi farada alayka alquran la radduka ila maad yàlla ne woon na ko dana la dellu si mbokk loolu seeni wax la dañu xam ni ab jullit lu mel noonu ba yonent bi day dund ba suñ jamono yi tey kenn mësu ko wax ci kaw suuf yonent yàlla muhammad moo nekkaat ni di dund kenn mësu ko wax ci kaw suuf xel nanguwu ko alquran waxu ko sunna waxu ko saxaaba yi xamuñu ko ulama wu islam xamuñu ko ala kulli xaal la ñu yonent bi alayhi salaam wax mooy bis bu faatoo allaxira la ñuy daje ca déegam ba sallallahu alayhi wa sallam ba fi faatoo ba sahaaba yu suul ko ca xabroom ba musul dagg du guddi du bëccëg doomu aadama yi dem ca xabroom ba di ko fa fekk di ko fa ziyaar di ko fa mi ngi noonu ñaanal yàlla ba ila yumina hada su ko defee wax jooju day ngalawaay bu leen ko gëm na ngeen ko weddi ni ngeen di weddee lu ngeen mën a weddi ci kaw suuf wax seeni doomin ñu weddi ko abadan suñu borom yàlla subhanahu wa taala kon loolu la wax ab yeneen tam mu ne ko nag yàlla moo gën a xam kan mooy indi njub yàlla gën a xam képp koo xam ne dafa nekk ci réer te it mbokk doomu aadama ngalawaay yoo fexeel ba bokk ci ñi yàlla xam ne ne ñi ngi ci njubug yàlla na neexoon dëkk bi yépp weddi la waaye maadaama wóor na la ne lii nga nekk kat mooy la nga xam ne moom la yàlla gërëm walla waaye loolu ñu la doy alaysa allahu bi kaafin abda julit ya borom da ko war a doy yow yeneenti yàlla bi musoo yaakaar ne danaa wàcc ci yow téere xanaa yërmaande bu yàlla def ci yow te loolu it mbokk day weddi wax ju bëri yeneenti bi alayhi salaam nii la meloon naa la meloon déedéet mbokk yeneenti yàlla bi avant muy am quarante ans xamul woon ne yàlla dana ko mos a yónni mook ndawi makk yépp yemoon musul am benn contact boo xam ne ni yàlla xamaloon na ko ne ko yow da ngay nekk ab yonent xanaa daal lu dul ne six mois avant que yàlla yónni yàlla mayoon na ko heure bu géntee lu mu génte da koy gis waaye gannaaw loolu xamu ci woon dara loolu tax keroog bi jibril jëkkee dajeeg moom affaire bi bett ko jaaxal ko loolu mooy la nga xam ne ko moom la jurit di war a gëm suñu borom yàlla nag mooy tànn yërmaandeem di ko wàcc ci ku ko neex mënoo ko fexeel ba bul bokk mukk kuy dimbali ay yéeféer ay waay yow julit xamal ni suñu borom yàlla dafa jël teddaange jox ko julit yéeféer doomu aadama bi nga xam ni dafa gëm boroomam warul dem mukk di jàppale ab yéeféer rawatina ci wàllu diineem abadan rawatina ci wàllu diineem amma bu dee ne ca la nga xam ne liggéeyu àdduna la loolu suñu borom yàlla terewuñu ko maadaama ñoom xeexuñu ñu noonoo wuñu waaye lépp loo xamee ni seen wàllu diine la xaraam na julit di ci jàppale ab yéefeer gannaaw ba it suñu borom na ko ay yow yonent yàlla bi aaya yi yàlla wàcc ci yow gannaaw ba nga xamee ne ñëw na bu dara dox sa diggante nga jëfe ko te it mbokk yonent yàlla bi noonu la meloon lépp loo xamee ne ni ndigal la bu bawoo ci yàlla amul kenn koo xam ne mën na dox digganteem ak mu jëfe ko loolee mbokk mi ngi noonu yéen ñëpp yéen a yàgg dégg keroog ba mu taxawee di wax ne wallahi bis bu Fatima sàccoon danaa dagg ab loxo kenn musu koo dox digganteem ak ay yàlla yi borom bi nag subhanahu wa taala dina ko wooteel jëme ci sa borom te it mbokk loolu mooy waru garu képp ku yàlla may xam-xam mooy woote jëme ci yàlla bañ a woote jëme ci sa maam bañ a woote jëme ci sa bopp wooteel jëme ci yàlla mi ngi noonu bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale ak seen borom ak lu àdduna yàgg-yàgg gannaaw ba it bul woo yàlla di ko boole ak keneen yàlla ak ibrahim yàlla ak muusa yàlla ak jibril bu ko def mukk waaye itamit day wane ne képp ku woo yàlla boole ko yonent bi tooñ nga ko gannaaw ba ko yàlla teree na ko bul woo yàlla boole ko keneen loolu tax mboo kenn du wax yàlla ak suñu borom yàlla ne xamal ne lépp loo xam ne dañ koy yaakaar ca du yàlla bis dana mës a ñëw mu masaal ca mbokk mi ngi noonu waa asamaan dañuy faatu waa suuf dañuy faatu kullu shay'in halikun illa wajha suñu borom yàlla rek moo fi des loolu moo taxoon ba keroog ba yàlla faatee ab yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la abubakar taxawoon waxam wax ju siiw jooje képp koo xam ne da doon jaamu muhammad nga xam ne muhammad moom faatu na ku doon jaamu yàlla nag nga xam ne yàlla moom mi ngi dund du faatu ba faw loolu mbokk mi ngi noonu jullit du yaakaar ku dul yàlla du sukkandiku ci ku dul yàlla moo tax borom bi ne fa tawakkal ala alxayi lazi la yamut del sukkandiku ci yàlla mi nga xam ne du faatu keneen ku dul yàlla haali kon day mas a faatu rek mi ngi noonu borom boobu nag mu ne lahul xukmu mooy atte lu ko neex ci ay jaamam mooy atte lu ko neex adduna mooy atte lu ko neex àllaaxira lahul xukmu laa mu aqiba li xukmi su attee keneen dootu atte jàll wa ala te yéen ñépp ci moom ngeen di delloo loolu it mbokk julit projet yi lu mu bëri bëri tukki yi lu mu bëri bëri événement yi lu mu bëri bëri képp kenn ci ñun bu mu fàtte ne am na bis boo xam ne mi ngi koy xaar ci tiirab yàlla ba bis boo xamee ne nii dañ lay jël delloo la ci yàlla jël wa ala te bu keroogee amul lenn loo xam ne mooy ànd ak yow amul lenn lu lay mën a xettali lu dul jëf yu baax ja nga xam ne yaa ngi ko doon jëf yal na yàlla defal ñu bis ba ñuy dellu ci moom muy bis ba gën ci suñuy bis yal nañu yàlla teeroo njéggalam teeroo ñu yërmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain suñu borom dane da nga jox jegeñaale bi akam kan mooy jegeñaale jegeñaale mooy ñi nga bokkal ñi nga bokkal mooy sa côté way jur bu góor sa côté way jur bu jigéen ñooñ ñooy alqurba borom xam-xam yi am nañ ci ay déggin am na lenn ci ñoom ñu naan fa nga xam ne yéen a bokk ñeenteelu maam kooku moom lañ ci lañ ci jublu mooy ki nga bokkal maam seeni maam bokk seeni maam seeni maam ba ñeenteelu maam ñu ne ñooñu ñuy ay alqurba loolu doonte ne lalu xëy na ñu jëkk ñu ñoo ko doon xam gone ndakaaru ñi ñu bokkal maam sax xamuñu ko waaye daal ci gàttal daal képp koo xamee ni nii xam nga ne am na mbokk gu dox seen diggante côté ndey côté baay jox ko aqam aq boobu bokk na lu ko sunu maam yi doon tënkee dañ naan li dul sax karaw moo koy dox lan moo dul sax karaw la ca jëkk mooy làmmiñ dee ci wax lu baax ci mbokk gi loxo du sax karaw la nga am dee ca dee ko bokk ak ñoom tànk suuf du sax karaw dellu solo sa dàll di leen fii ci al qurba aqam aq bu nekk nag ku nekk ak aqam am na koo xam ne moom soxlul sa xaalis li mu soxla rek nga yëg ko di ko seet si am na koo xam ne soxlul nga seet si ko maanaam boo koy jox rek moom seen baax na kon daal ku nekk daal lépp loo xam ne day rafetal mbokk gi loolu moom la ñuy tuddee atisal qurba xaqahu nam gën a jegee nag lay gën a foore yi nga xam ne da ngeen a bokk ndey bokk la ka nga bokkal maam ki nga bokkal maam bokk la ka seen ñaari maam bokk ku la gën a jege rek moo ëpp àq ci sa alal ak ci sa seeti ak leneen ak leneen wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaleykum salaam ala kulli xaal ñëw na ci ay riwaaya wallahu subhanahu wa taala alam ne subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar bu nekk day nekk benn garab guñ lay jëmbatal ci aljanna loolee kon tasbix bu nekk subhanallah bu nekk alhamdulillah bu nekk allahu akbar bu nekk dañ lay bindal kër ci àdduna ci àjjana bokk na riwaay yu ñuy wax ne yonente yàlla bi bi mu dajeeg ibrahima alayhi salatu wasalaam def na ko nuyul ma sa xeet te xam ne ko aj ajjana day tool la bu naat bu nangu lool la nga xam ne moo koy jëmbat nag mooy albaqiyatu salihat te mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar heure boo ci waxee benn jëmbatal ñu le garab ci ajjana wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam naam orientation ci ki nga xam ne dafay bëgg soxna wala ah dafa bëgg a jël soxna daa takk soxna ba ba pare waaw dafa takk soxna ba pare ah liñ koy liñ ko ci wax daal mooy na na ci ragal yàlla rek ala kulli xaal na ci ragal yàlla mooy suñu borom subhanahu wa taala dane walahunna mislu lazi alayhinna bil ma'ruf am nañ soxna yi du toll ne la leen war ci njëkk suñ borom mu ne wala tansaw il fadla baynakum bu leen fàtte nga ñël seen diggante jëkkal jàng ban droit ban devoir la borom kër am ci soxnaam nga jéem ko def ba pare léegi nag dooga laaj droit yi ñëw ci yow ala kulli xaal la la nga xam ne daal mooy baasu sëy mooy ñoom ñaar ñépp ñu ragal yàlla ku nekk sëy bi la nga ciy def nga def ko ci yàlla tax loolu bu amee rek sëy bi dana dëgër sëy bi dana sax yàlla dana ko sàmm la nga xam ne mooy yàq sëy rek di yàq entreprise di yàq lu mu mën a doon mooy kenn ci ñoom indaale ca intérêt yonent bi alei salatu wasalaam nee na yàlla nee na ñépp ñaar ñu ànd yàlla mu ne maa leen ñetteel fii ak amul ko wor moroomam te bokk na ci wor sa moroom mooy nax ko ngir profité ci kawam waaye bu ne ku nekk yaa ngi yéene sa moroom mawadda ak rahma fokk yàlla day barkeel sëy bi am naa nag pour détails yi moom am na ay xutba yi nga xam ne ni borom xam-xam yi def nañ ko ci ak ay conférence mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ah waaw waaw way way arab yi da koy wax comme alkange alkange ñel na way ka annahu arab bu ne way rek mooy musuba musuba lay wax loolu mooy kaddu la goo xam ne nii dañ koy wax ci arab way ka annahu mooy cëy comme ni ngay wax rek naan naan naan cëy mi ngi noonu mooy yaa ngi wax aw kawtif ka annahu la nga xamee ni nii mooy lay nekk day mooy loo xam ne dafa mel ne xamoo ko woon tey nag yaa ngi koy doog a xam nekkate yoote yàlla mooy tàllal wërsëg ñel ku ko neex firiwul ne kii daa nekk julit wala daa nekk yéeféer waaye wërsëgu yàlla bi moo ko jox ku ko neex dana ko jox jaam bu mu bëgg comme Souleymane dana ko jox jaam bu mu bañ comme Qaaruun dana ko xañ nit ki dana ko jox nit ki waaye kon alal ji kii am ak ñàkk gi kay am firiwul ni kii yàlla du ko bëgg wala yàlla du ko bañ déedéet am ak ñàkk firiwul loolu moo tax ñu ne way ay waay cey woo nañ kawteef nekkatee yàlla mooy tàllal wërsëg ku ko neex mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam mbokk bi dafa wax waaw waaleykum salaam wa ala kulli xaal masala ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waajuram loole ñun lañ ca gënal mooy ñu maandu ca loolu moom moo ñu gënal ci ci ci mbir boobu borom xam-xam yi dañoo am ixtilaaf ndax ñoom dañ leen di considérer ay yéeféer wala dañ leen di considérer ñoo xam ne dañoo dee ci fatra te mooy dee nañu ca dajewuñu ak yonent am ñoo xam ne am na xadis ñuy tegtaloo am na ñoo xam ne am na xadis ñuy tegtaloo ala kulli xaal di gën a daal maandu mooy problème masala waajuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ci gënal mooy ñu gàttal ñu ci bàyyi leen ak suñu borom jalla wa ala naam bismillah waaw waaw mu ne waaw wala kulli xaal suñu borom day joxe ay orientation yoo xamee ni nii mooy la gën ci nit ki orientation yooyu bokk na ca fa nga dëkk fa nga war a dëkkal say soxna léegi nag waa ji nga xamee ne nii dafa dem Europe nekk fa di liggéey ñaari cas danay am am na ñoo xam ne demuñu pour dëkk fa dañ faa dem pour liggéey bàyyi fi seeni soxna di liggéey di ñëw ku mel noonu dañuy gis ne fee ay tool dong lañ ko mën a jàppe la nga xam ne dañ faa dem it établir fa toog fa su la nga xam ne mooy la gënoon la leen lislaam wax yóbbu leen seen soxna waaye tamit ne bépp mbir boo xam ne lislaam da koo digle nga gis ne soo ko defee fitna da cay juddoo te mbir ma nekkul loo xam ne nii dafa mokk ci farata yi farata yi lu mel noonu dañ naan dàq fitna moom la ñuy jiital ci ñod di njëriñ dëkk ak sa soxna loolu njëriñ la amma bu dee wóor na la su ma ko yóbbee fee ma dëkk kat loolee da ngay gis ne diinam dafay yàqoo islam danaan dama ko fa yóbbu xanaa kay li nga xam ne mooy li jafe suñu jamonoy tey mooy yeneen bi dana woon topp leen sama sunna topp sunu xulafaa u rashidoon bokk na lu Omar ibn al-Khattab tëraloon képp ci yéen ku tukki six mois yu nekk na ñëw këram mi ngi noonu six mois yu nekk la ñëw këram waaye tey jii natt bi ñu yàlla nattoo da ngay gis ne am na ñoo xam ne daan toog waxuma six mois waaye six ans sax duñ ñëw seen kër ñee dix ans ñee lu ëpp loolu loolu moom am nattu la waaye daal nañu xam ne la gën lu ñuy lislaam tëral góor foo nekk say soxna foofu la ñu war a nekk ak yow lu dul lor ñëw lu dul lor ñëw ba lor ñëwee nag moom ñu xam ne lor moo ñëw wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xam naa mbokk yi jàpp naa mënees na doy loo loolu ah waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw mu ne ala kulli xaal ki nga xam ne dafa judd samedi ban bis lañ ko war a tudd loolu ñu ngi ko war a tudd ca àjjuma ja mu nekk juróom-ñaareelu fanam mi ngi noonu juróom-ñaareelu fanam loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a sax ci sunna allahuma lu dul nag lu bari suñu dëkk yi li ci siiw ñoom dañ naan bu dee ne judduwul la nga xamee ne nii ca guddi ga ay mooy àjjuma ca guddi nga xam ne dafay am kon guddi samedi gi am bëccëgu samedi bi ñoom dañ naan kon samedi lañ koy tuddaat moo tax li gën a siiw fii sax ñoom duñ ci détail yooyu dimanche la judd dimanche lañ koy tudd lundi la judd lundi lañ koy tudd waaye nag bu ñu dellu woon te la nga xam ne nii moo gën a nekk ay tegtal mooy képp koo xam ne dafa judd ci bis tel bis ba ko jiitu mooy juróom-ñaareelu bisam ca lañ ko waroon a tudd allahuma nag rawatina pour ndaw ñi jërul indi ay ixti ay juuyoo ak seeni goro wala seeni wayjur mooy buñ ko tuddee juróom-ñaareel ba baax na jàpp nañ ne mooy la gën buñ ko yóbbu ba juróom-ñetteel bi it jarul indi histoire comme niñ koy dégg léeg-léeg mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain